ma lan nga naral Sénégalais yi ban projet nga am ci Sénégal mu jaxasoo tiit ne ko loolu indiwuñu fi li ko ndax li ko fi indi xoolal yow ñu ne la waxal lan nga naral sa réew nga ne loolu indiwuma fi léeg yow loolu fi indi mooy yàq der tuumaal sosalaate lan la ko waxal yow nga ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam mais ban réew lañu ne ko pourquoi Ousmane Sonko foog ne moom am na droit wax lu ko neex ci ñëpp wax la ko saf ci lépp mais kenn amul droit wax li mu xalaat ak li ko neex ci moom li muy wax mais Ousmane Sonko kan moo ko ne moom xaritu yàlla la kan moo ko ne moom demi Dieu la sur terre kan ko ne Sénégal gi yaa ko moom ba yow Ousmane Sonko yow yaay kan ba loola neex nga wax ci lépp loola neex nga wax si ñëpp ak anam bi mu la soobee mais kenn amul droit wax lu ko neex ci yow yaay kan soosu la borom bi sax sàqñu sàqñu mais nit ñi da ngay gis ñu ko di nat waxuma laax yonente hmm. yow kii taa dañ laa war a jaamu yow xar yi nga yor dajale nga leen ci Pastef ma ma kii euh, Saliou taalaat télé bi mi ngi fay retour bi yow xar yi nga am xar yi nga mën a manipule xar yi nga mën a napp hmm. yaa leen jël dajale leen ñu lim gu naw nga nga nga pëtaxal pastef te ci bir ñoñu sax ñu bari mer nañu te neena naa la vote sanction bi nga nara am ci histoire Sénégal. Hmm. rew mi adina war ngeur kep duñ ko fàtte. Hmm. li man maa la ko wax. motax mu ne ci plan de sabotage. waaw plan de sabotage bobu nag xam nga tax xam nga xam nga plan de sabotage boobu. avertir nako waaw mais gis nga abu li wax ni c'est très important. kii combat préliminaire lañ koy maanaam. salaamaaleykum ba. way degoluma la xam nga luy combat préliminaire. waaw. mooy làmb yu yu yooyu di am ay. yu ndaw yi quelque trois heures. yaa ngi dégg. moom balaa ñuy moom supporteram yi balaa ñuy dugg stade. dañuy dégg yuuxu rek. ñu leen daan nañ si. dama balaa midi. li ma wax nii bii bii législative maa ko wax. duuru damaa ko nee naa leen denc leen ko samay yére bëriwul. yaa ngi dégg <laughs> dama bëgg ngeen ngeen denc yëpp pour après reetaan yi ma ne. Pastef day perte élection yi. dama ne. man de. man de wóoluwuma man dama wóoluwul peuple bi. xoolal ah, abu xaaral ma ñëw wóolu man xoolal duud may dem tuuti rek ma ñëw dama bëgg a wax lu am solo dama bëgg a wax ne man maa ne Ousmane Sonko doo yàlla doo yenent bi doo yàlla doo yenent bi yow doo toog ci diggu réew mii même ni nga nekkee premier ministre nii dangaa foog na ba tey yaa si si dëgër googu di opposé wu loola neex ngay wax ko ci nit ñi lu la neex nga def ko ci nit ñi ba bal nak kenn du wax ci yow bo bañé ko wax ci yow dama nga tok ci te keur goor gi bayyi politique ba xam ndax dim fi toj ñun dañu amul temps bu ñu perdre ci yow da nga bañ a réew mi di politique am droit wax lu la neex ci réew mi ak ci ku mu muntu doon sénégalais yi am droit wax ci lu leen neex ci yow mu lay neex ak mu lay nakari bu dee nak mën nga tecc sénégalais yépp tejeul yokal say prison bul tardé ci lenn élection yii ñu jëm 17 novembre 2024 ndéem soob na suñu boroom ndéem soob na suñu boroom laa wax yow Ousmane Sonko da perte élection yi incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak loo mën a def nag ak loo mën a def élection yii ñu jëm majorité moom doo ko am doo laal majorité doo ko séen hmm. te yow xam nga ko ndax panique totale bi nga nekk nii manque de sérénité bi nga nekk nii da nga yor say données yor say mbir tiit jaxasoo léegi tiit jaxasoo boobu nag boo foogee ne noppiloo un Cheikh Yérim Seck noppiloo un Bougane ak keneen ak keneen ak keneen kooku waaw mën naa ci topp mais loolu loolu gis nga abu duñ sax taxaw xam nga duñ taxaw ci yooyu parce que muy man de yow ñu nekk fii Sénégal ñun échantillon lim bu ndaw la ñu ñun lim ndaw la ñu yow sénégalais yi ñoo la baax ndax da leen da leen a nax tromper leen manipuler leen ba toog maamun maamun yàlla jël réew dénk la ko puusoo paasoo defoo dindiwoo lu dul yàq der tuumalaate sosalaate napp xëpp tiigalaate point

avant opposition bi di jóg sénégalais yi ñoo nekk ci téléphone yi di la vaar ngay gis sa sa sa daal yi sa say démb say tey ak sa nga xam ne yow wàcc nga koo xam ne danaan meeting ci mbedd mi foofu yëpp toj fees dell léegi ci ay salle yu pukus ndaw ngay dem ay grand yu tuuti yoo xam ne nii mille mille non mille huit cent sa duudu mille place feesut ñii ñuy roqosaate ñii di dugal fii di puus di roqos nga xam ne kon wàcc nga nga wàcc kolobaan saaga yi dàqar naa saaga yi saaga takkar naa se ñu jàkkaarloog yow nga paniqué jaxasoo moo tax di nga yéex a def benn ful dama yàkkam di campagne électorale bi ubbi même suma fekkee fee camp yow doo ñame def benn ful ndax keroog dégg nga gis nga tey booy live ba nga naan live sa sa sa sa mouton yi du content nan mi ngi ci 100000 mi ngi ci 200000 cent ba nga def ma do so 2000 2000 mille vues en direct sax amoko ba ba pendant que yaangi wax Cheikh Yérim nga yeb yo pendant que yaangi wax kala yaa ci internet ba de la rita balé sa conférence de presse boy échec total total échec mais sa mère gogou mais bu ñu ko sippi Bon, vous bu fekkonte ne am nga nit wala am nga ne dëgg nek sa dalay wo la nañu changer de fusil d'épaule ndax do dem di bëgg tatane askan wi dans moins de quarante cinq jours du ko ni di des di Vous yow kan mo lay ñun ñu la sénégalais yi nga ne dañu dañoo des bo ñëwé tu feras mieux que Macky Sall et Ablaye Wade nga le plus petit ministre de Macky Sall mo la xam-xam la vision dàq la dafa fi dara ci 6 mois 6 mois nga mel ko fi def 6 siècle mel ku nekk ci fin de règne Sénégal yi xam ne lu tax ñu tiit mooy dañu xam ne yow doo la yóbbu fenn yow du ak yow la Sénégal di émerger donc déjà tous les signaux sont rouges war nga sénégalais ne non il faut que équilibrer. assemblée mënuma damaa tële waaye sa mer boobu ñun bu ñu ko sippi bu ñu sippi bu ñu sippi sa mer bi wusu ñun defuñu la dara ñun defuñu la dara lu dul wan ni nga mel te yaa ko wan àddina